maak moom kuréel pour des indi blocage te bu indee blocage mécanisme président am pour teggi blocage yi dafa bëri mun na jël les pouvoirs spéciaux bu les pouvoirs spéciaux bu boobaa des gouverner seul soxlawul kenn mhm. des gouverner seul mun na jël ay li ñuy wax euh, nu ñu koy waxatee am na terme juridique maa ngi koy fàtte mhm. euh, bëri na ay mécanismes yu constitution bi prévoir pour que en cas de blocage le président de la République puisse

gis nga par exemple élection yi am de côté complètement code électoral parce que li code électoral wax ci parrainage c'est obligatoire parce que man gëm encore une fois que le conseil constitutionnel dañu au-delà de leur prérogative du ñoom ñooy war que euh, parrainage warul am élection ah, parce que conseil constitutionnel du def loi day interpréter loi du def loi donc nous mun nañ prononcé wu ci délai mais waruñ prononcer wu ci contenu texte bi mënuñ ko changer donc lool ay faiblesse la mise en corrélation entre suñ constitution ak une code électorale, dañ ci wara très rapidement mais pour ñu am code électoral bu il faut que nous bayyi des jox politiciens ñukoy ñu chaque fois bu avons jonganté politique généralement nous def révision du code dialogue le dialogue politique la mais dialogue politique généralement ça tourne autour de la révision du code mm-hmm. révision code Bobu toujours gars yi pour régler ses propres problèmes. Historiquement, nous historiquement révision code depuis 1994 pour régler ay problèmes personnels et chaque fois problèmes, les problèmes, problème y durs et blocages. blocage def fait une révision code pour empêcher les candidats nous ñu ñu ñu ñu participer et cetera def nañ fi révision code pour dugal parrainage bi mu jur blocage et cetera mm-hmm. Mm-hmm. donc il faut que politiciens yi bien sûr dañu war beaucoup de ci waxtaan wi mm-hmm. mais bu ñu waxtaanee ba pare dañu war a djébal euh, résultat waxtan bi dañ ko wara djébal ay spécialistes de la logistique ñi nga xamné sen xam-xam dafa match ti ñu bindé loi ñu bind ko parce que il faut toujours une écriture transversale Il ci constitution bi constitution, ci code électoral bi mhm. dem ci règlement intérieur assemblée nationale C'est moy tax nga mettre len en corrélation aujourd'hui dañu changer une conscience, changer ko changer ko changer ko ba ci bir y bi fay am ay contradiction mhm. Bo un ci règlement intérieur bi fay jox interférence bu l'exécutif ci exécutif bi ci fonctionnement assemblée nationale yoy dañ ko changer mhm. mais ce yep nak li ci gëna important le mode de désignation des députés tant que nous continuons de désigner des députés de façon euh, suñu scrutin mixte nous ñu une partie proportionnelle et une partie majoritaire nous avons toujours problème euh, pour nous des députés vraiment représentatifs des Sénégalais dañu avons euh, des élections uninominales basées sur des euh, nous avons koy des localités c'est-à-dire nous diviser Sénégal en plusieurs localités par exemple Dakar sept députés la am député bu nekk représenter localité Ben Gokh. bu nous avons un scrutin majoritaire uninominal à deux tours donc ça voudra dire que que fay fait, il représente vraiment la circonscription euh, bu nous une petite dose de proportionnalité parce que nous nous permettre raw gàddu bi am de nga vous ne da ngay jiitoo benn voix daal di gàddu ñetti député wala cinq député wala ou ñaari députés. donc tant que defuñ loolu duñ am une une assemblée nationale vraiment représentative des des populations et je pense que comme nous jëm ci territorialisation des politiques publiques il est important que député yi euh, circonscription yi leen di fal ràññee leen xam